بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokki ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu barkeel sunu jataay bi ginnaaw loolu sunu dars bi passé woon mi ngi nekkoon ci aadama alayhi salaam ci dundam ginnaaw loolu tey ñoo ngi jël kenn ci ay doomam yi nga xam ne bokk nañ ci ndonoom juddoo nañ ci suufam yaroo ci keppaaram muy yonent bu tudd siif ndax ginnaaw aadama siisa moo ci tegu siisa lu muy tekki mooy xibatullah mooy mayu yàlla nicmatu min allah wa ziyaada loolu la siisa di tekki ci ci arab mooy xibatullah mayu yàlla xam ngeen ni aadama ñaari doomam yi nga xam ne dañoo amoon problème muy haabil ak qaabil ba kenn ki jot a rey moroomam aadama dafa naqarlu ci loolu lool ci deewu kan lañ rey kan lañ rey ah haabil lañ rey kan moo ko rey kan moo ko rey qaabil moo ko rey aadama daf cee naqarlu lool ba loolu amee yàlla daal di koy may doom ji ci tegu mu nekk siisa mooy hibatullah mayu yàlla tabaraka wa taala mu ne wa sammayaahu bi dalika li annahuma razaqahu llahu baada an qatala haabil qutila haabil yàlla may na ko ko ginnaaw ba ñu reyee haabil six mu nekk doomu aadama abu zar radiallahu anhu wa ardaahu solo na benn xadis bu wér ci xadis yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na inna allaha anzala miatu saxifa wa arbaa suhuf unzila minha ala siis xamsina saxifa abu dar abu zarrin algafaari kenn la ci ndongo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla tabaraka wa taala wàcce na téeméeri fëy ak ñeent nee na ci biir téeméer ak ñeent yooyu wàcce nañ ci ci siisa xamsiina saxiifa yàlla wàcce na ci ci téeméer ak ñeent yooyu yàlla wàcce na ci juróom fukk ci doomu aadama boobu tudd siisa nga xam ne moom moo doon aadama alayhi salaam waxoon nañ leen ne aadama ni mu faatoo bi aadama faatoo atum lëmm lañ ci teg xawaa daal di faatu daal di génn àddina daal di koy topp kon aadama ak awa ñi ngi rawantee ci seen dund benn at kan moo njëkk a faatu aadama kan moo ci tegu xawa ñaata at lañu rawante benn at waaye balaa aadama faatu waxoon nañ leen faatoom dafa sibbiru feebar mu am envie lekk fruit fruit aljanna mu woo doom yi ne leen man de loolu ñu ngi ko jëlee ci abdullahi ibnu imam ahmad mu jële ko ci yaxya ibnu damira assaadi qaala raaytu cheykhan bil madina yatakallam fa saaltu anhu gis naa benn màgget ci biir madinatul munawar muy wax rek ma daal di koy laajte ñu ne haza ubay ibnu kaab ñu ne ma góor gi dey mu ngi tudd ubay ibnu kaab bi ma ko gisee muy wax ma laajte turam ñu ne ma ubay ibnu kaab la fa qaala inna adam lamma hadarahu almawt qaala li banihi ay bani inni ashtahi min simaari aljanna moom adama alayhi salaam bi mu waree faatu dafa doom yi mu ne leen dama namm firi aljanna ndeysaan waaye firi wi àdduna ak firi wi aljanna du benn lu tax du benn mooy firi wi àdduna yi day nëb day forox day soppeeku ba pare soo ko lekkee ba pare fan lay teereeg yow mooy wanag wa dem àll ba amma fir wi aljanna du funax du soppeeku ah ba pare boo ko lekkee du la yóbbu toilette da nga koy ñaq mu daal di génn daal di xeeñ parfum bi gën a neex ci parfum miski yi aljanna amul duus amul duus de mu ngoog ndeysaan doomi daal di génn mu ne fa zahabu fa zahabu yatlubuna lahu ñu daal dem di ko utal fruit fastaqbalahum almalaika ñu dajeeg malaaka yi wa maahum aknaafuhu malaaka yaa ngi yor mbalaan mi ñuy bi ñuy sàngeku dee ñi ngi yor bagage yi nga xam ne ku dee da koy aajowoo yépp ñu daal di laaj doomu aadama yi fan ngeen jëm ñu daal leen di tontu ne leen sunu baay dafa feebar moo nu yónni nañ ko utal fruit ndeysaan malaaka yi ne leen irji'u faqad qada abukum dellu leen seen papa ngi ci sukuraat instant bi heure bi ñu toll seen papa warul aajowoo lekk parce que mi ngi ci sukuraatul mawti mu ngi ci diggante àdduna ak àllaaxira mi ngi waaj a dee ñu daal di dellu ànd ak malaaka yi falamma jaa'u ra'athum hawa fa arafathum ba ñu ba ñu ñëwee jóge ci yoon bi di ñëw ànd ak doomi aadama yi xawaa daal leen di seen daal leen di xàmmee ndeysaan falaadat bi aadam ba mu leen xàmmee rek mu daw songu aadama daal di koy lëng ndax xam ne na leen waaye doomi aadama yi ñoom ñoo xàmmewul malaaka yi lu tax lu tax xàmmewuñ malaaka yi te awaak aadama xam nañ malaaka yi ndax ñoom dañoo nekkoon ak ñoom àjjana moo tax bi leen xaw a seeni xàmme leen mais ñee xàmmewuñ leen mu lëng aadama ndeysaan ngir ragal mu dee aadama ne ko ilayka anni sori ma ilayki anni sori ma fa inni innama utiitu min qibalik fàttewuma ba léegi li taxoon ma wàcc suuf yow mii yaa taxoon gis nga moo tax yoon bi ne taatu nisa nadaama topp jigéen rëccu rek ku topp jigéen rëccu jigéen ku ko topp rek màcc sa matt sa baaraam bi cax du la dugal mukk ci lu yéwén lu baax intérêt rek ak gis-gisam ak bëgg-bëggam te yàlla dogal na ne ñoom seen xel ak seen gis-gis du sori yàlla dogal na ne ñoom mënuñoo muñ mënuñoo dékku métit te dañoo bëgg lu neex dañoo bëgg àdduna moo tax ku leen topp rek rëccu moo tax aadama ba mu séenee malaaka yi awa daw lëng ko mu ne ko sori ma ndax yow mi yaa taxoon ñu wàcce ma ci kaw suuf ndeysaan bokk na ci lim ko wax moom aadama fa xalli bayni wa bayna malaikati rabbi azza wa jal ay waay awa dimbali ma génnal sama digganteeg sama boroom sama digganteeg samay malaaka boroom génnal ci diggante bi xejoo ci bàyyi maag samay malaaka boroom fa qabaduuhu ñu faat ko ñu rey ko mu daal di dee fa xasaluuhu ñu sang ko ñoom ñoo ko sang ñoom malaaka yi wa kafanuuhu ñoo ko laxas ñoo ko sang wa xannatuuhu ñoo ko def ni ñuy def niiw wa xafaru lahu ñoo ko gasal pax wa lahaduuhu ñu dugal ko ci wa sa avant ñu ko ci dugal wa sallu alayhi ñu daal di koy jullee summa daxalu qabrahu fa wadauhu fi fa wadauhu fi qabrihi bi ñu gasee pax bi ginnaaw ba ñu ko jullee ba pare ba gasal ko pax ñoom malaaka yi ñu daal di dugg ci biir pax bi daal di ko ci dugal daal di koy suul summa xassu alayhi ñu daal di sotti suuf si kaw ñu daal di gestu doomu aadama yi ñu ne leen yaa bani aadama haza sunnatukum yéen doomu aadama yi lii mooy seenu tëralin lii mooy seeni doxalin ci ku faatu nii lañ koy def dañ koy sang sàng ko dafal ko li ci war jullee ko gasal ko pax daal di koy suul boobu ba léegi ku dee rek dañ lay suul mbokk yi falamma maata aadam alayhi salaam qaama bi abai l amri baadahu waladuhu siis bi aadama faatoo balaa muy faatu def na ndono dénkaane ginnaawam siis daal di koy donn waaye avant loolu yëpp préparé na ko ndax xam na ne kii moom moom may donn sama doom yëpp kii moo ci nekk yonent préparé na ko bu baax a baax moo tax ñu ne fa taallama ashyaa kasira wa kaana aaliman min azami l ulama aadama jàngal na ko wa allama aadama siis muazzamu li ilmi alladi indahu lakin ma stataa an yaaxuza al ilma alladi inda aadam aadama jàngal na ko genn wàllu xam-xam bi mu xam ne yore woon na ko mais siis mënul jël xam-xam bi nekkoon ci aadama leen lu tax lu tax siis mënta jël xam-xam bi nekkoon ci aadama leen mais jox na ko ci genn wàll lu tax mënu ko jël parce que yàlla moo jàngal aadama aadama moo jàngal siis yàlla ku mu jàngal ndax am na looy tële moo tax mënu koo jox lépp jox na ko nag jox na ko am na lu mu ko jox ci lim yoroon moo tax mu mujj nekk borom xam-xam bu mag ñëw na ci hadis boo xamante ne imaam Ahmad moo ko solo muy hadis bi ma leen wax sànq mu ne yàlla tabaraka wa taala wàcce na ci siis téeméer ak ñeenti feuille lenn wàcce na ci siis loolu siis am na ci juróom fukki këyit yoo xam ne moom la yoroon ba mu doon ne aadama mu taxaw pour defar njaboot gi nga xam ne moom la ko bàyyam bàyyee woon mbokk yi nee na bi aadama faatoo at lañ ci teg xawaa daal di faatu fa tawalla siis ibnu adam alhukma wal amra wan nubuwata min baadihi wa saare li hukmihi fil ard siis donn na adam ci atte donn ko ci mbir yi waaye donn ko ci yonent gi ginnaawam mu mujj taxaw place baayam ci jàngale diine ak yar ak wàññi doomu aadama yi ak di leen jubante bil adli wal xayri ci njub ak maandute waaye nag lakin intashara al fasad fi suhul inda qawmi qaabil ñaari camp la ñaari kër la ñaari groupe ñaari mbooloo mbooloo mi aadama bàyyi kan moo leen jiite siis beneen mbooloo bi nga xam ne dañoo dawoon bàyyi aadama kan moo leen jiite ah qaabil moo leen jiite waaye foofu nag mbon dafa tasaaroo lu tax mbon tasaaroo fa lu tax mbon tasaaroo ci beneen kër gi parce que amatuñu bi bi qaabil demee yóbbaalewul lu baax lu bon la yóbbaale bi mu demee mu am ay doom doom yooyu amuñu sens pour ñu jàngal leen diine amuñu sens pour ñu jàngal leen jikko ju baax amuñu sens pour ñu yar leen ñu daal di yàqu moo tax bi ñu laajee ibnu abbas ci wax ji yàlla wax wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula lan lay tekki mu ne inna batnayni min waladi aadam kaana ihdahuma yaskunu suhul wal axar yaskunu aljibaal mu ne ñaari biir a ñaari famille ñaari kër ci ci doomu aadama yi ñii dañoo dëkkoon ci kaw montagne yi ñooy ñooy ñoom ñoom ñooy ñoom siis ñii dañoo dëkk ci xur yi ñoom ñooy ñoom xaabil ñii àndoon ak siis góor ña dañoo rafet jigéen ña ñaaw ñi àndoon ak ñoom xaabil jigéen ñaa rafet góor ña ñaaw fa jigéen ña rafet góor ña ñaaw nag mbon dafa tasaaroo ñaari kaay yi léegi lan mooy problème siis mu ngi góorgóorlu côté bi pour defar waaye léeg-léeg ci ay nitam danañ rëcc dem ca mbon nga lu waral loolu mooy iblis moo soppeeku benn waxambaane ñëw ci kër googu ci këru xaabil ci famille xaabil yi ñëw ci benn kër nekk fa comme booy buy liggéey waaye fa muy liggéey commencé na faa dugal mbon yett na fa Philippe commencé jàngale nu ñuy Philippe defar na fa ndënd bu ñuy tëggee defar na fa violon defar na fa defar na fa defar na fa ba commencé di leen tëggal di leen jàngal fecc ka woyaka ñu commencé di yuuxu di cëppi cëppi mais léeg-léeg affaire bi débordé coow li riir mi fecc meeg woy meeg jaxasoo bi góor ak jigéen ba ñee dégg ko ñee commencé di yolleeku par kenn kenn di dem di seetaan yi yemul ci loolu sax moom iblis mu defar leen feet ba pare mu ne leen jouru feet bi jigéen du sol yére am kenn ci waa kër siis waa kër Adam waa kër Habil ñu baax ñi mu demoon yërndu ji rek mu gis loolu mu daw wax ci ko waa dëkk ba góor ñi fii daal di màbb fekk jigéen ñële jaxasoo commencé njaaloo keroog la commencé tasaaroo fa lañ ko njëkk a defee mbon gi tas ñu daal di sëy ak ñoom léegi nag problème daal di am moo tax bi ñu laajee ibnu abbas wax jooju mu ne mooy wax bi yàlla wax ne wala tabarrajna tabarruj al jahiliyat al ula bu leen def tabarruj tabarruj mooy lan mooy taxawaalu sol yére yu bon futteeku def yaramu neen ci jigéen di tambaambaalu ci mbedd yi bu leen ko def comme ni ko jaahil yu njëkk yi defe woon démb ñooñ ñooy ñan moom mooy waa kër qaabil wantasara alfasad bi hadihi suwar intisaaran kabiran mbon daal di tasaaroo ci façon boobu façon bu bu doy waar lu tax mooy léegi kii nekk fii di defar am na problème bu rëy pour téye ay nitam ndax noos gi fee la nekk noos gi fee la nekk te doomu aadama yi yàlla nattoo na leen dañoo dañu ñu ci ëpp ci ñoom dañuy topp seen bànneexi bakkan mbon daal di tasaaro tasaaro bu metti wa zalla siis yuhaawilu an yuhaafisa ala ma baqiya fi lxayri min alxayri wa yamnau abnaahu min al ixtilaat bi haula lakin alcheytan badaa yuwaswis ndeysaan siis tàmbali na di jéem a defar muy tere ay mbokkam ay doomam ñi mu jur ak ñi ko baayam bàyyee woon ak yeneen mbokkam yi pour ñuy dem fële di jaxasoog ñu bon ñee waaye seytaan mu ngi koy mu ngi puus gaa yi pour ñu dem commencé na moom seytaane muy jax-jaxal xol yi daan leen dem leen waaye dem leen kii daf leen a bëgg a tëdd dund mooy li am fii rek léeg-léeg nga am sa doom di ko yar benn waaye ñëw ne la xoolal gis nga sa papa daf la bëgg a tëdd dund moom kon la naakal blende la xamul lu géej gi riir gis nga booy xoolal dundal et puis sax sa papa loo ci xamula bi mu nekkee jeune waaye yow moo fi dàqoon tóoj moo fi dàqoon ëñ moo fi dàqoon braille danaan baali demal xoolal gis nga demal nga war a dëkk bi mun ta baax parce que kenn mooy ta mooy gas fukk di suul da ngay am doom bu jigéen bu ko yar ñi ñëw wax ko loolu nga am doom bu góor bu ko yar ñi ñëw di ko wax loolu dan ko dara wala ay xaritam wala nangam ak nangam ak nangam ndeysaan léegi-léegi ci ngoon benn xale bu góor daf ma woowe France mu ne ma tey mét météro bi mu duggoon tey nag kaar bi mu duggoon tey di ñibbi këram mu ne dañoo jékki-jékki rek benn waay jàpp benn jigéen di séy moom ci biir kaar bi ci biir ci nit ñëpp a ngi toog mu ne nga gis gars yi nag ñii di ree ñii di filmer ñii naan non c'est normal hein c'est normal mu ne am ñoo xam ne dañu jël seen portable di filmer di ree quoi nee na moom fu mu toogoon nee na mi ngi yàkkamti mu xuma la sax mu yëg këram mais car bi egg benn arrêt rek ba mu wàcc xool loolu nu mu grave foofu la doomu aadama yi toll ci def njaay àll man a xam nga yàlla dafa noonu ci suratu tiin su maradannaahu wala kat karam naa bani aadama doomu aadama maa ko teral wala kat karam naa la yàlla wax bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin xoolal yàlla aaya boobu man yàlla maa teral doomu aadama wala kat karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarr maa leen yëkkati ci jéeri ji jéeri ji doomu aadama lu ko neex mu def am na fi lépp soo demee ci géej gi kasaalik yàlla yemul ci loolu mu ne wa razaqnaahum min at-tayyibaat mbooleem lu neex lu dagan lu doomu aadama di lekk yàlla indil na ko xoolal jën fu muy jógee xoolal yàpp yàpp buy naaw ngay lekk yàpp buy dox da ngay lekk yàpp buy féey da ngay lekk doomu aadama amul lu ko yàlla desal yàlla mu ne wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaq li ma bind yëpp ma jël doomu aadama ne ko yaa ci gën yaay pee yàlla yemul ci loolu sax bal amara al malaayika an yasjuduun ah li bani aadama yàlla sant na malaaka ñu sujootal aadama ngir teraanga waaye doomu aadama lan la fay yàlla ci teraanga bi yàlla defal doomu aadama yëpp lan la doomu aadama def mooy di faye yàlla mbon di faye yàlla dëgër bopp di faye yàlla féttërlu wow le dëgër bopp bañ a jaamu yàlla tabaraka wa taala loolu la ko fay moo tax siis siisa def na effort jéem na defar li desoon li ko bàyyam bàyyee woon ci yiw wa yamnawu atbaahu min al ixtilaat bi haula jéem na tere ay mbokkam pour ñu dem di dajaloog ñële lakin alcheytan bada yuwaswis wa bada jamaatu qaabil yaksiruun wa jamaatu shiisha yaqilluun xam nga kuy woote lu baax doo am mbooloo abadan siis ak ni mu amee woon mbooloo yëpp ak li ko aadama bàyyee woon mbooloom commencé nañoo wàññeeku kan moo ëpp mbooloo léegi qaabil moo commencé ëpp mbooloo lu tax ndax da ngay gis ku dëkk fi ba caag rek buubu ay bébësal nit ki fii fii neexul fee moo neex lan moo nekk fee sàngara lan moo nekk fee fecc lan moo nekk fee musique lan moo nekk fee bëre lan moo nekk fee yamba lan moo nekk fee dorog lan moo nekk fee sol lu bon lan moo nekk fee bañ a jaamu yàlla fee nag lan moo fa nekk mooy jaamu yàlla wax lu baax def lu baax julli loolu moo fa nekk mbon nekku fa nit ñi nag nit ñi ba léegi àddina bi noonu la mel mbooloo boo gis mu baax tuuti nit ñoo fay nekk mbooloo moo gis mu bëri du diine du diine waaw ku woote ñëpp ñëw xoolal li nga yor xoolal li nga yor bu baax vérifier ko woote nga rek ñëpp ñëw vérifier li nga yor ndax nit ñi bëgguñu dëkk yàlla moo wax ci quran wala qad jinaakum walakin aksarahum lil haq yàlla nee na maa leen indil dëgg waaye li ëpp ci nit ñi bëgguñu bëgguñu dëgg da ngay jàng sa quran yàlla mu ne wa maa yumin aksaruhum billah illa wahum ñëpp ci nit ñi duñ gëm yàlla dul ay bokkaalekat lañ foog am lu ñu dendaleeg yàlla tabaraka wa taala kon ndeysaan siisa mbooloom commencé nañoo néew commencé nañoo tuuti mundu zalikal waqt zallal amr depuis boobu nga xam ne mbir mi toll na foofu ci mbon siisa taxaw di woote di defar mu daal di yenu coono daawa bi ba keroog muy faatu moom siis bi muy faatu dénk na mbir mi doomam anuus fa qaama bil amri baadahu moom it mu taxaw ci waaye bu leen fàtte ne ba léegi am na mbooloo moo xam ni moom waxuma la yonent waxuma la borom xam-xam waxuma la ku baax mais ñoom amuñu dara ci lu baax ñoom dañoo vide te léegi ñooñu commencé nañ bëri dem nañ ba mëdd mbooloom siis siis a ngi waaj a dee daal di woo doomam bu tudd Anuus ginnaaw ba mu liggéeyee ba sonn ci mbir mi taxaw ci li ko yàlla santoon woote ci sonn ci lool waaye fekk Iblis moom def na li muy def bi sis faatoo mu jox mbir mi doomam bu tudd Anuus kooku tamit fa qaama bil amri baadahu kooku daal di taxaw ci mbir mi ginnaawam bi kooku tamit demee nekk ci moom it gis nga de nekke moo tax chaque jour soo nekkee ci lu baax fexeel fexeel fexeel nga am koo ko bàyyee boo nekkee ci lu baax bu dee daara nga yor fexeel daara ji nga am koo ko bàyyee ndax ëllëg bu dee place nga yor fexeel place bi nga am koo ko bàyyee ndax ëllëg bu dee usine la bu dee industrie la lu mu mën a doon ci àdduna bi fexeel nga am ku nekk sa ginnaaw sinon rek buñ la gisul mu maam buñ la gisul mu fay mu yàqu moo tax gis nga diine yàlla tabaraka wa taala yàlla dafa tànn ay yonent saa yonent demee rek yàlla indi keneen saa yonent demee rek yàlla indi keneen kan moo njëkk a ñëw aadam kan moo ci tegu siis siis bi mu fi jógee doomam yi du ñu ay yonant mais fexe na ba doom yi baax ba doom yi xam lu baax mën a woo nit ñi li ci lu baax loolu est-ce que ñun tey ay yonant lañ du ñu ay yonant est-ce que ay borom xam-xam lañ déedéet ay ndonga lañ rek yoo xam ne tey jii ñu ngi woo nit ñi ci lu baax loolu mooy àdduna kooku bi mu fi bàyyeekoo moom it bàyyee na mbir mi doomam suma baadahu ibnahu mahlail wa huwa allazi yazamu al ajam min al fursh annahu maliku l aqalim alsabaa moom doo doom jooyu tudd mahlail ginnaaw bañ ko joxee mbir mi nekkoon na ko am doole nekkoon na ko am pouvoir ndax sax soo déggee ñu naan ajam mooy kudul arab ñooñu moom la ñuy wax ne moom jiite woon na gox yi ci àddina bi yëpp jiite woon nañu weex ñi jiite ñu ñuul ñi jiite ñu xonq ñi jiite ñu weex ñi al aqalim al arbaa yépp la jiite woon wa annahu awalu man qata al asjar moo njëkk a dagg garab def ko ay kër moom bant yi menuisier di liggéey moom moo ko njëkk a dagg utiliser ko wa bana al madain moo njëkk a tabax ay dëkk wal xusuun al kibaar moo njëkk a defar ay tata yoo xamante ne booy xeex ak ñeneen bu ñëw du ñu mën a dugg du ñu mën a pénétrer tata bi pour dugg fekk si la wa annahu huwa allazi bana madinatu babil su ngeen jàngee français yéen ñi jàng tubaab da ngeen dégg ñu naan Babylone waa arabe yi ñoo naan babil français yi naan Babylone buur boobu moo ko njëkk a tabax muy dëkk boobu ñu naan babil wa madinatu suus al aqsa ak beneen dëkk bu ñu tuddee suus ci dëkk bu sell moom waa ji sax pour wax la ne am na doole ku amoon doole la xeex naa ak iblis gañe ko wa annahu qahara iblis wa junudahu kon ku am doole la de nit xeex ak iblis gañe ko ah kon kooku du ko ndaw waxuma la iblis mu gañe iblis waaye dafa xeex ak iblis gañe ko gañe armée iblis wa sarradahum alal ard mu dégager leen ci suuf si moom moo leen fi jële ila atrafiha ba ñu dem ci tet yi dugg ci ruq yi ci xur yi dem biir géej dugg ci biir dex yi ñu daw comme suuf si complètement ndax waajooju xeex bu mu leen doon xeex ñu laa dem dëkk ci montagne yi shaabil jibaal ci xuri montagne yi wa annahu qatala xalqan min al murtaddin al jinn wal xaylaan moom waajo ji li mu rey ci ay mbindeef ci ay jinni ak ay nit ñu bon ci ak benn famille bu ñu naan xaylaan ñu bon la ñoon moom waa jooju li mu ci rey li mu rey ay jinni ak famille boobu kenn xamul nu mu toll ci kaw suuf wa kaana lahu taajun azim moom daa amoon mbax ni bu rëy li ko yàlla mayoon ci secret ci biir mbax ne boobu la nekkoon moo taxoon mu am doole mu am pouvoir moom waa jooju tudd Mahlaïl doomu kan la surtout siis la siis mooy maamam wa kaana yaxtubu naas moom danaan xutba di def ay discours di soññ ay nitam ay armeem moom waa jooju wa daamat dawlatahu arbaina sana moom waa jooju état bi mu jiite woon état bi dund na 40 ans kon waa jooju mbokk yi nekkul ko ndaw falamma maata waajoji bi mu faatoo qaama al amru baadahu waladahu yarad waajoji bi mu faatoo moom it doomam ñëw remplacer mbir mi taxaw ci falamma hadarahu l wafaat bi ko dee dikkalee moom waajooju doom ji awsa ila waladihi xaanuux mu daal di jël mbir mi dénk ko doomam bu tudd xaanuux te boroom xam-xam yi wax nañ ne xaanuux moom moom mooy idris alayhi salaam moom la ñuy waxtaanee dars bii di ñëw ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu